qui lui faut y yépp les autorités coutumières et religieuses le conseil national lébou euh, préfet sous-préfet les ministres d'État le ministre d'État Ismaël Majorfar, le ministre Omar Gueye les maires le maire de la ville sans fa de ah, le maire de la ville d'Audonia, Khamenei yaram de mais jóg na ñëw ci bamay duggu ci dëkk bi ma ñaanal suñu borom may ko wér gu yaram bu mat sëkk luy président conseil départemental les maires Albert Mané tous les maires ici présents di wax ni tay ji bëss bu am solo la parce que dañu bëgg lancer travaux yi nga xam ni moom mooy yaatal boulevard Maurice Guèye ñepp xam nañu Rufisque mook Ndar ñoom ñoo jëkk am statut de commune fii ci Sénégal c'était le 10 août 1872 mu nekk dëkk bu emblématique dëkk bu am solo képp ku doon ñëw Dakar wala di génn Dakar fii nga doon jaar tey jii nag président dans le cadre de Promoville bu ne damay yaatal yoon bi nga xam ne ñëpp xam nañu yoon bi muy le boulevard Maurice Guèye def ko deux fois deux voies de voir que nous avons 7 mètres de large. Il y a un aménagement. Madame, nous avons Champs-Élysées. Nous avons Champs-Élysées. Yakana Nikoku, président de la République, Amdolo Hamid Afonego, refuse. Si je dis, madame, comparé à Hamid Promobile, je suis Le Financement BAD, à peu près 75 milliards. Financement BID, 81 milliards. Si vous voulez, le budget de l'État, c'était 69 milliards lolu buñ ko défé sombi yakarna ni Rufisque lu ci am ci wàll amul benn dëkk boko ci am lolu nak président de la république moko def parce que c'est presque 24 milliards de financement les Rufisque bénéficié suñu jëlee financement yëpp lu Promoville am lolu nak yakarna ni mën nañ delloo président parce que lu ko tax a à travers Promoville moy fexé dëkk yi di jotanté tey jii boulevard bi bu ñu ko defee fii ci Rufisque ak yeneen travaux yoon yi am ci biir Rufisque yaakaar naa Rufisque non seulement dana mën na gën a jege Dakar waaye war na mën a dem ba raw Dakar donc loolu mooy programme équité territoriale mooy fexe dëkk yu amul yoon ñu fexe ñu am yoon wala ñoo xam ne dañoo néewle ñu fexe ñu yokk leen ba nga xam ne dootuñu féete ginnaaw te programme bii nga xam ne Promoville moom lay doxal di def les voiries yi assainies maanaam defal leen ay yoon. def ci assainissement def ci éclairage manam def ci ay aménagement dëkk yépp nar ko am toutes les capitales régionales am ko toutes les capitales départementales am na am ko loolu ku ko def xam nga ni Sénégal da nga bëgg mu jëm kanam te programme boobu la le président def à travers Promovilles waxuma sax lu muy def à travers le PUDC pour fexe ba nga xam ne dëkk yi nekk ci àll yi mën a am jumtuwaay am les accès universels waxuma luy piment di def pour les communes ak les localités qui nekk au niveau des frontières fexe ba fexe ba nga xamni ne ñu xam ne dañu yaakaaroon dañoo tardé wala ñu fàtte won leen ñom ñu fexé ba dabaate lolu moy développement Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent ci PAP bi ñu wax P2 PAP moy P2A bi nga xamni ni ajuste e accéléré bi nga xamni ni président moko ko jagleel Sénégal donc lan moo des mooy ñu fexe di liggéey gën liggéey dong.

xam nga lu tax ma wax loolu maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf merci